asalaamaaleykum nag Sénégalais yi asalaamaaleykum ñu may seetaan ah ah nit tamit ah, nit kese la mën a doon dèjà nit nit day juum baaluwuma journaliste mais damay baalu ñu may seetaan ak ñi ma bëgg ak ñi ma sopp ak ñi ma bañ ñëpp maa parce que xale laa damaa nekk ci yoon bugguma dara di ma faagaagal mais li jotoon xew damaa yeewu gis ko maa ngi nii yeewu def sama def sama peñu wax di tux sama chicha yore sama caabi ah, voiture ah, di génn. ma xool lu ma am mais pas ay coow kenn xamee ma coow chaque jour dañ may dóor tey maa dóori sax ma am ndam tuuti sax ñu xam ne am naa ndam ci kaw dañ maa tooñ góor jigéen kenn du ko accusé tax ah, mu muus croquette wala petit boo ko boo xol bi tàng mm-hmm. mi am nit janta nekk xale yow tay du bàyyi gàtt ma njoloo mi ñëw dangay waxi góor jigéen loolu dafa rëy mais nag euh, saka ci va di français ci va téye laa wala Pawlish man la Pawlish man la Pawlish am ñaanu waajur am ñaanu xar am ñaanu muus am ñaanu petit cola kon dara duma faagaagal maa ngi sant suñu borom sant naa yàlla maa ngi di yeewu sant suñu borom nag sant naa yàlla ñun ñi may seetaan ak ñoo bëgg journaliste moo ko baal mais ñi may seetaan ak ñoo bëgg laay baalu àq da leen na yàlla fay ay caaw bonne journée. yow mi dugg sama compte abonné yàlla nga dund téeméeri at ak lu tegaat